Euh, dama euh, dégg effectivement sànq ci euh, passation wu président bu bees bi conseil économique social et environnemental mu tudd ci suma tur naruma ci woon a addu sax waaye nag bu ñu la interpellé mënoo def lu dul gindi askan wi leeral leen na fekk fa këyit yoo xam ne yi ci la war a sukkandiku pour liggéey waaw moo tax ñuy def passation de service loolu it mbokk yi xam ko bu fekkoon ne keroog maa ngi ko doon xaar ñëw na kon danaa ko expliquer lépp wax Euh, ni mbir mi doxee kayit yaa nga fa waaye nag ni ñuy liggéeyee dafa changé ndax léegi ordinateur la ñuy utiliser moom nag xaw naa gëj a liggéey ci administration def naa 2004 ba léegi ci diggante bi nag yëf yi dafa changé ci ordinateur la ñuy tënk lépp ordinateur nag aussi il faut que borom ordinateur bi ñëw def mot de passe bi ubbi nga mën a xam li ci ne. Euh, ñi nga xam ne ñoo ko waroon a def bi ma demee muy directeur administratif et financier bi wala directeur des ressources humaines bi. Euh, dañ ko bind badaaxal ne ko toogal sa kër te bul duggati sax ci conseil économique social et environnemental comme fonctionnaire la moom it mu uti huissier wane ne ah man kat dañ tere ma dugg si waaw loolu boo ko defee doo gis ku la jox ay kayit doo xam nooy liggéeyee te waaye jamono jii may wax ak yéen euh, nangu nañ ne kooku war naa mën a ñëw expliquer ñoom it seen directeur yu bees yi fi ñuy jaar euh, ba continuer liggéey bi loolu nag mënoon nañ koo def ci fan yële ndax li ñu war a def mooy tàqali administration ak politique. Euh, bu ñu ko jaxasee rek euh, day tax liggéey wi nga xam ne moom la ñu war a defal askanu Sénégal bi fan ko bëgg a yóbbu duñu ko fo yóbbu ndax tardé nañ ci ay fan. loolu dinañ leen ko expliquer bu ñu bàyyee rek ñi nga xam ne ñoo fi newoon ñu ñëw taal ordinateur yi wax leen maanaam liggéey bi nu mu nu nu mu nu koy defee fu muy jaar waaye nag boo ne yow ñëwoo waaye ñi nga xam ne ñoo fi newoon yéen bu leen fi dugg si ah, kon euh, liggéey woowu day xaw a tardé loolu mooy li ci am naruma ci woon a wax sax waaye nag. Euh, comme noonu la demee euh, fale aussi ñu expliquer suñu mbokku Sénégal yi euh, kàddu yooyu méngoowul ak li nga xam ne mooy li am ndax man yàgg naa liggéey liggéey naa fonction publique internationale Nations Unies foofu xaalisu tubaab yi ci kayit yu leer lañ koy tënke jóge fa am fa ñaar fukki at ak juróom ñëw Sénégal nekk fi ministre de la justice nekk fi premier ministre nekk fi président du conseil économique social et environnemental ci fukki weer ak juróom benn kon defe naa ne xam naa administration xam naa liñ koy liggéeyee euh, waaye nag euh, dafa dafa avance dafa évoluer du rép rek ci ay kayit lañ koy tënk dafa am loo xam ne ci ordinateur la nekk te ña ko doon liggéey ay fonctionnaire lañ ah, buñ leen bàyyee ñu ñëw euh, amul benn problème dinañu liggéey ak ñi nga xam ne ñoo fa ne jërëjëf. dama dégg effectivement sànq ci passation wu président bu bees bi bu conseil économique social et environnemental Euh, mu tudd ci suma tur euh, naruma ci woon addu sax waaye nag bu ñu la interpellé euh, mënoo def lu dul gindi askan wi leeral leen na fekk fa këyit yoo xam ne yi ci la war a sukkandiku pour liggéey waaw moo tax ñuy def passation de service loolu it mbokk yi xam ko bu fekkoon ne keroog maa ngi ko doon xaar ñëw na kon danaa ko expliquer lépp wax ko ni mbir mi doxee këyit yaa nga fa waaye nag ni ñuy liggéeyee dafa changé ndax léegi ordinateur la ñuy utiliser moom nag xaw naa gëj a liggéey ci administration def naa 2004 ba léegi ci diggante bi nag yëf fi dafa changé ci ordinateur la ñuy tënk lépp ordinateur nag aussi il faut que borom ordinateur bi ñëw def mot de passe bi ubbi nga mën a xam li ci ne. Euh, ñi nga xam ne ñoo ko waroon a def bi ma demee muy directeur administratif et financier bi wala directeur des ressources humaines bi euh, dañ ko bind bataaxal ne ko toogal sa kër te bul duggati sax ci conseil économique social et comme fonctionnaire la moom it mu uti huissier wane ne ah man dañ maa tere ma dugg si waaw loolu boo ko defee doo gis ku la jox ay kayit doo xam nooy liggéeyee te waaye jamono jii may wax ak yéen ah, nangu nañ ne kooku war naa mën a ñëw expliquer ñoom it seen directeur yu bees yi fi ñuy jaar eh, ba continuer liggéey bi loolu nag mënoon nañ koo def ci fan yële eh, ndax li ñu war a def mooy tàqali administration ak politique. Euh, bu ñu ko jaxasee rek euh, day tax liggéey wi nga xam ne moom la ñu war a defal askanu Sénégal bi fan ko bëgg a yóbbu duñu ko fa yóbbu ndax tardé nañ ci ay fan. loolu dinañ leen ko expliquer bu ñu bàyyee rek ñi nga xam ne ñoo fi newoon ñu ñëw taal ordinateur yi wax leen maanaam liggéey bi nu mu nu nu mu nu koy defee fu muy jaar waaye nag boo ne yow ñëwoo waaye ñi nga xam ne ñoo fi newoon yéen bu leen fi dugg si ah, kon euh, liggéey woowu day xaw a tardé loolu mooy li ci am naruma ci woon a wax sax waaye nag. Euh, comme noonu la demee euh, fale aussi ñu expliquer suñu mbokku Sénégal yi euh, kàddu yooyu méngoowul ak li nga xam ne mooy li am ndax man yàgg naa liggéey liggéey naa fonction publique internationale Nations Unies foofu xaalisu tubaab yi ci kayit yu leer lañ koy tënke jóge fa am fa ñaar fukki at ak juróom ñëw Sénégal nekk fi ministre de la justice nekk fi premier ministre nekk fi président du conseil économique social et environnemental ci fukki weer ak juróom benn kon defe naa ne xam naa administration xam naa liñ koy liggéeyee euh, waaye nag euh, dafa dafa avance dafa évoluer du rép rek ci ay kayit lañ koy tënk dafa am loo xam ne ci ordinateur la nekk te ña ko doon liggéey ay fonctionnaire lañ ah, buñ leen bàyyee ñu ñëw euh, amul benn problème dinañu liggéey ak ñi nga xam ne ñoo fa ne jërëjëf. dama dégg effectivement sànq ci passation wu président bu bees bi bu conseil économique social et environnemental. Euh, mu tudd ci suma tur euh, naruma ci woon a addu sax waaye nag bu ñu la interpellé euh, mënoo def lu dul gindi askan wi leeral leen na fekk fa këyit yoo xam ne yi ci la war a sukkandiku pour liggéey waaw moo tax ñuy def passation de service loolu it mbokk yi xam ko bu fekkoon ne keroog maa ngi ko doon xaar ñëw na kon danaa ko expliquer lépp wax ko ni mbir mi doxee këyit yaa nga fa waaye nag ni ñuy liggéeyee dafa changé ndax léegi ordinateur la ñuy utiliser moom nag xaw naa gëj a liggéey ci administration def naa 2004 ba léegi ci diggante bi nag yëf fi dafa changé ci ordinateur la ñuy tënk lépp ordinateur nag aussi il faut que borom ordinateur bi ñëw def mot de passe bi ubbi nga mën a xam li ci ne. Euh, ñi nga xam ne ñoo ko waroon a def bi ma demee muy directeur administratif et financier bi wala directeur des ressources humaines bi euh, dañ ko bind bataaxal ne ko toogal sa kër te bul duggati sax ci conseil économique social et environnemental comme fonctionnaire la moom it mu uti huissier wane ne ah man dañ maa tere ma dugg si waaw loolu boo ko defee doo gis ku la jox ay kayit doo xam nooy liggéeyee te waaye jamono jii may wax ak yéen ah, nangu nañ ne kooku war naa mën a ñëw expliquer ñoom it seen directeur yu bees yi fi ñuy jaar eh, ba continuer liggéey bi loolu nag mënoon nañ koo def ci fan yële eh, ndax li ñu war a def mooy tàqali administration ak politique Euh, bu ñu ko jaxasee rek euh, day tax liggéey wi nga xam ne moom la ñu war a defal askanu Sénégal bi fan ko bëgg a yóbbu duñu ko fo yóbbu ndax tardé nañ ci ay fan. loolu dinañ leen ko expliquer bu ñu bàyyee rek ñi nga xam ne ñoo fi newoon ñu ñëw taal ordinateur yi wax leen maanaam liggéey bi nu mu nu nu mu nu mu nu koy defee fu muy jaar waaye nag boo nee yow ñëwoo waaye ñi nga xam ne ñoo fi newoon yéen it bu leen fi dugg si ah, kon euh, liggéey woowu day xaw a tardé loolu mooy li ci am naruma ci woon a wax sax waaye nag. Euh, comme noonu la demee euh, fale aussi ñu expliquer suñu mbokku Sénégal yi euh, kàddu yooyu méngoowul ak li nga xam ne mooy li am ndax man yàgg naa liggéey liggéey naa fonction publique internationale Nations Unies foofu xaalisu tubaab yi ci kayit yu leer lañ koy tënke jóge fa am fa ñaar fukki at ak juróom ñëw Sénégal nekk fi ministre de la justice nekk fi premier ministre nekk fi président du conseil économique social et environnemental ci fukki weer ak juróom benn kon defe naa ne xam naa administration xam naa liñ koy liggéeye euh, waaye nag euh, dafa dafa avance dafa évoluer du répp rek ci ay kayit lañ koy tënk dafa am loo xam ne ci ordinateur la nekk te ña ko doon liggéey ay fonctionnaire lañ euh, buñ leen bàyyee ñu ñëw amul benn problème dinañu liggéey ak ñi nga xam ne ñoo fa ne jërëjëf. dama dégg effectivement sànq ci passation wu président bu bees bi conseil économique social et environnemental Euh, mu tudd ci suma tur euh, naruma ci woon addu sax waaye nag bu ñu la interpellé euh, mënoo def lu dul gindi askan wi leeral leen na fekk fa këyit yoo xam ne yi ci la war a sukkandiku pour liggéey waaw moo tax ñuy def passation de service loolu it mbokk yi xam ko bu fekkoon ne keroog maa ngi ko doon xaar ñëw na kon danaa ko expliquer lépp wax ko ni mbir mi doxee këyit yaa nga fa waaye nag ni ñuy liggéeyee dafa changé ndax léegi ordinateur la ñuy utiliser moom nag xaw naa gëj a liggéey ci administration def naa 2004 ba léegi ci diggante bi nag yëf fi dafa changé ci ordinateur la ñuy tënk lépp ordinateur nag aussi il faut que borom ordinateur bi ñëw def mot de passe bi ubbi nga mën a xam li ci ne. Euh, ñi nga xam ne ñoo ko waroon a def bi ma demee muy directeur administratif et financier bi wala directeur des ressources humaines bi euh, dañ ko bind bataaxal ne ko toogal sa kër te bul duggati sax ci conseil économique social et environnemental la moom it wanee ne ah man dañ maa tere ma dugg si waaw lool boo ko defee doo gis ku la jox a kayit doo xam nooy liggéeyee te waaye jamono jii may wax ak yéen ah, nangu nañ ne ko war naa mën a ñëw expliquer ñoom it seen directeur yu bees yi fi ñuy jaar eh, ba continuer liggéey bi loolu nag mënoon nañ koo def ci fan yële eh, ndax li ñu war a def mooy tàqali administration ak politique eh, bu ñu ko jaxasee rek day tax liggéey wi nga xam ne moom la ñu war a defal askanu Sénégal bi fan ko bëgg a yóbbu duñu ko fa yóbbu ndax tardé nañ ci ay fan loolu dinañ leen ko expliquer bu ñu bàyyee rek ñi nga xam ne ñoo fi newoon ñu ñëw taal ordinateur yi wax leen maanaam liggéey bi nu mu nu nu mu nu koy defee fu muy jaar waaye nag boo nee yow ñëwoo waaye ñi nga xam ne ñoo fi newoon yéen bu leen fi dugg si ah kon euh, liggéey woowu day xaw a tardé euh, loolu mooy li ci am naruma ci woon a wax sax waaye nag euh, comme noonu la demee fale aussi ñu expliquer suñu mbokku Sénégal yi kàddu yooyu méngoowul ak li nga xam ne mooy li am ndax man yàgg naa liggéey. Euh, liggéey naa fonction publique internationale Nations Unies foofu xaalisu tubaab yi euh, ci kayit yu leer lañ koy tënke euh, jóge fa am fa ñaar fukki at ak juróom ñëw Sénégal nekk fi ministre de la justice nekk fi premier ministre nekk fi président du conseil économique sociale et environnemental ci fukki weer ak juróom-benn kon defe naa ne xam naa administration xam naa liñ koy liggéeyee waaye nag dafa dafa avance dafa évoluer du répp rek ci ay kayit lañ koy tënk dafa am loo xam ne ci ordinateur la nekk te ña ko doon liggéey ay fonctionnaire lañ ah, buñ leen bàyyee ñu ñëw euh, amul benn problème dinañu liggéey ak ñi nga xam ne euh, ñoo fa ne jërëjëf